alaaji Konde caabi féete na ko ginnaaw de te ñaari député Benno Bokk Yaakaar yooyee ñu ngi ci guddi gu bët setagu libération yéene kaay ne trafic passeport diplomatique yooyee waaw gis nga ñoom Mamadou Sall Boubacar Biaye Sadio Dansokho tax nañ ca mën a rifu laa la wax quatorze certificats de mariage yoo xam ni seen tur ca ne neuf autorisations parentales de compte laa la wax dix neuf de naissance treize relevés authentiques de leur indemnité parlementaire juróom yoo xam ne dañ ne Mamadou Sall leen jur te juru leen ñaari jabar ak passeport diplomatique yi xam ne dañ leen koo jaay Sadio Dansokho président conseil départemental bu Saraya nekk tam député ci douzième législature bi tax nañ ca scandale ba bëna rip laa la wax libération yi ne kaay ne waaye Pape Samba Badiane kat moo koy protégé waa ji ay plainte yu bëree bëri laa lay wax ni mi ngi lalu ci ndodom gën a gàtt ñett ah waaw waaw yow banque agricole nga la sûreté urbaine daal jàppoon na ko libéré waat moom Pape Samba Badiane nii ne te jamono jooje Serigne Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg waajal na dikki kanam gi président Macky Sall samedi ji ca Touba ngir nag ñuy inauguré kon hôpital bu mag ba waaye jëmu ju tedd ji nee na lépp lu xeetoo dund woowu ñu koy defee bëgg faa gis kenn yënga-yënga laa la wax ay manifesté ki politique ak yooyu amu fa booy benn ñaar Serigne Mountakha day xam le na ne élection locale na woon foon Touba ci yëf yi mu di Boubacar Biaye di ak Sadio Dansokho seetal leen ci coow li du yomb ndax taq nañu ci ba ci seeni yuqu certificat de mariage yi Alaaji Jaaji Konte doon def ci seenu tur di ko joxi jigéen yu mu doon wutal ay passeport diplomatique ba ñu wàññee jigéen yi mu jot a jox certificat de mariage journal bi nee nañu toll nañu ci fukki jigéen ak ñeent gis nañu it ca enquête ba juróom-ñeenti autorisation parentale juróom-ñaari relevé de compte fukki extrait de naissance ak juróom-ñeent ak it fukki relevé indemnité parlementaire ak ñett yu député yi ca kër Konte lañu leen fekk libération nañu muy député Mamadou Sall di député Boubacar Biaye di Sadio Sansoxo président conseil départemental bu Saaray bi leen waa DIC division investigation criminelle woolo ngir déglu leen dañoo joxe ngànt li ñu wax moo di dañoo nekk ci farata maanaam urgence te nekkuñu Ndakaaru